mbokk yi gannaaw bu nu santee suñu borom subhanahu wa taala ci ab yonentam Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant a Seexul Xadiim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu borom dëgëral ko te kartanal ko te wéral ko te defal ko mbooleem xulafaaw yi nga xam ni ñoo wuutu mag ñi fu ñu fi mën a nekk ci réew mi mbokk yi dellusiwaat nañ ci jotaay bi nga xam ni baaxoo nañ ko ànd ak yéen fii ci seen télévision Mouride TV muy yóbbalu suba ci njàngaleem Seexul Xadiim nafaana allahu bi barakaati yi ñu ngi mbokk yi ci suñu juróom-ñeenteelu jotaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni asadun naadi xadaban yowmal qiyaamati salaasatun xaalimun lam yanfau llahu bi ilmihi wa muktirul xawli fi lbaatil wa xaqul walideeni sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ñi nga xam ne ñooy gën a tar mbugal ëllëg yowmal xiyaam ñoo koy gën a mettale ñoo koy gën a tarle ëllëg yowmal xiyaam nee na mooy ñett ñii te mooy boroom xam-xam boo xam ni du jariñ yàlla ca la nga xamante ni mooy xam-xamam ba ak koo xamante ne dafa bari ay wax waaye wax ji li muy bari bari bari lépp lenn loo xamante ne njariñ la amu ca lépp dafay nekk loo xamante ne ak neen la sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy gën a tar am mbugal te ñoo koy gën a mettali ëllëg yawmal xiyaam mbokk yi kon kenn ku nekk ci noonu nag war naa bàyyi xel ba xam kan la ci ñett ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñooy gën a tarle mbugal ëllëg yawmal xiyaam te itam ñoo koy gën a mettali Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu an dafa am benn bis mu romb benn waxambaane bi mu ko rombee daal koy wax ne ko yaa saabu isaa waqita sara salasin faxad waqita azarra kulluhu lax-laxika wa xab-xabika wa sab-sabika Seydina Omar dafa romb benn waxambaane bi mu ko rombee ni ko yow waxambaane bi ñetti ay yii de saa yuñ la ko fegalee su boobaa mbooleem ay yëpp yëpp yëpp fegal nañ la ko bi ci njëkk mooy saw làmmeñ ñaaral bi mooy sa biir ñetteel bi mooy sam pëy ni ko ñett yi daal saa yu ñu la ko fegale rek su boobaa mboolem ay yëpp yëpp yëpp fegal nañ la ko kon loolu mbokk yi lan lañ ciy dégg mooy kon nit ki daal war naa fexe ba sàmm li nga xamante ni mooy aw làmmiñam waaye far war naa fexe ba sàmm li nga xamante ni mooy biiram waaye war naa fexe itam ba sàmm li nga xamante ni mooy am pëyam lu mel noonu tam rot na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa am ku ñëw ci moom ni ko yow ki yàlla yónni man day damaa bëgg nga dénk ma waaye dénk bi nga may dénk nag damaa bëgg mu nekk dénk boo xamante ne bu gàtt lay doon bu tënku lay doon rek damaa bëgg nga dénk te mu nekk dénk boo xamante ne day gàtt day tënku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ñaari baat lan la ko wax da ko wax ni ko ittaqillah wa amdik lisaanak ragalal yàlla te nga jàpp saw làmmeñ waaye dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi ko damaa bëgg nga dénk ma waaye dénk bi nag bëgg mu nekk dénk boo xamante ne bu gàtt lay doon bu tënku rek lay doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ñaari baat ni ko ittaqillah wa amdik lisaanak ragalal yalla tinge ti saw lamagn waji bamtu wat ding laaj bi ñetti yoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa bi bamtu bi ding kan lolu ñetti yoon ci mom ne ko taqillahu wa amdik lisanaka ragalal yalla te nga japp ti li nga xamanteni moy saw lamagn cheikhul khadim neena na ni hadith bu wér ñewna bayiko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni man samata najah. Ko xamni noppi na rek su boba dina mucc ku noppi mucc neena lolu waroom xam-xam yi dañ firi ñenn ci waroom xam-xam dañ koo firi wax ne maanaam loolu moy ko xam ne taqoo ku nopi dana mucc ci li nga xamante fitna waaye ak tabbi li nga xamante ni mooy yi ak li nga xamante ni yi comme bi sallallahu alayhi wasallam sallam waxee ni ibnu kulluhu ima alayhi aw lahu muy doomu aadama daal lépp loo xamante ni wax ko day daal di dellowaat ci moom wala mu ñeel ko beneen riyaa bi ni ila amrun bil muy doomu aadama daal lépp loo xamante ni wax na ko rek loolu day delluwaat ci moom lu dul nag wax joo xamante ni da koy wax ngir digle li nga xamante ni mooy aw yiw kon mbokk yi képp koo xamante ni daal taxoo naa ak li nga xamante ni mooy noppi su boobaa kon dina mucc ci lépp loo xamante ni coono la waaye dina mucc itam ci lépp loo xamante ni fitna la mbokk yi kon xam naa foofu la ñuy taxaw la ci yóbbal bi jox leen dëgg insha allah taala ci beneen yóbbal